Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer euh, mbokk yi ñuy seetaan noo ngi fii tey ci Paypay samedi ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2024 ci bis bi nga xam ne Serigne Sidi Mbacke mu sëñ Modou Makhtar moo ko woote fii tey ci pay di bisum ñaan ak fàttaliku Serigne du Makhtar Mbacke jamono yi ñu àdduna nag taalibe yi ak euh, njabootu Serigne Touba gi fu ne ña ngi fay bàyyikoo di fekk sëñ Sidi Mbacke fii ci pay pay euh, bi ñu xëyee nag démb ci ajjuma ji la ñu tàmbali bis bi yendoo jàng alxuraanu karim durus xasaayati ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul bi ñu demee ba 17h jànkate yi Daarul Muxti yi ñëw nekk fekk sëriñ bi ba ginnaaw bi ñu juleegee sëriñ bi ñaan leen bi ñu xëyee nag ci samedi ji tey taalibé yi nag ñëw amal seeni siyaar ci kanam sëriñ Sidi Mbàkke mu sëñ Modou Maxtar mi toog jamono yi nag euh, sëñ Abdoulahi njaay mi nga xam ne mooy jëruñu sëriñ Sidi Mbàkke te nekk ci Bawal ñëpp xam tax taxawaayam ngeen gisoon ko ci woote màggal gi bi ñu koy waajal def avant première bi sëriñ bi joxoon ko ndigal mu woote ci mboolem tund bawal yi ak taalibe ak ñu féete tam nekkoon seen jëwriñ moo àndaat ak taalibe yi nag ñëw indi seenu liggéey lii ngeen jàkkaarloo muy saako yi mooy seen tooli àllarba yi nga xam ne moom la doon béy ci nawet bi moom lañ andi di ko jébal sëriñ bi ak seen addi yi nga xam ne moom lañ dajale jëm ci bis bi ñu koy jébal sëriñ bi kon dañuy bàyyee kàddu gi sëñ Abdoulaye Ndiaye lii la wax di saare sëñ di ko ñaanal fan bu gudd ak wér yaram di leen xamal ne it bis bii nga xam ne moom la Sidi woote jële ko ci ndigalam di way juram di sëriñam di sunu buntu ci kër Cheikh Awa Balla ñëw woote ko fii ci pay pay nu ànd ak moom ci bis bi ah ak di joxal sunu liggéey mbooloo mi ko doon liggéey ñu ngi nii toog damaa ñëw ci buntu bi gaa yi ma def naa sax lu taalibe defu ndax ñëw naa bu fi kanam sëriñ bi mbaxana waaye damaa liggéey liggéey bu toll nii di ko yot sëñ bi kenn ku ne ma mën a téye ci buntu bi naa ma demal yóbbu ko barab sàngam yóbbu ko barab sàngam te kilif te ki jox ni leen liggéey liggéey liggéey bi yëgu ko kon noo ngi siyaare di leen nuyu sunub liggéey nag joof na addi jin ko booleel mu ngi nii jagam nag lépp yàllaa tax nuy def moom dina xam dina nu xam nuy siyaare bis bi tey di leen xamal ne sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal di la sant tey it wolof dana lépp looy bañ mu ëgg si bu ko dig bis looy bañ moog si rek bu ko dig bis kon mbakke dig nga bis bi bis bi si na nu ñëw nañ ci sa tur ci tur Modou Mokhtar ndax mboolem ñi toppoon Modou Mokhtar tey ñu ci mag bariwul kóllëre googu moom laa yeesal sama digg ak yow cër bii nga ma jox sëñ Modou Mokhtar nekk na ak moom te jotalu ma ko lu ne lekk ci lu ne loon nag ka ko war a def rek ka koy def loolu mooy tax bis bii nu ñëw ci bis bii ci ndigalal sëriñ bi fas yéenee liggéeyal sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy sunu buntu ci borom daaru mboolem ñii ma ko séqan nag kenn ku ci nekk ñëw nga su ma wootee ñëw nañu su ma laajee joxe nañu ñoo ngi nii teew noo ngi lay sant Mbàkke di la gërëm te di la xamal ne kat nun rek sa ndigal la ñuy déglu sa kàddu la ñuy déglu lépp loo joxe ndigal noo nga ca loo tere noong bàyyi nañu ko noo ngi lay sant di la gërëm liggéey bi nag mu ngi nii am na leneen lu desit ndax leneen la ca war a wàll lépp te nga xam ne dugub la moo ëpp lii waaye mu nga fa ceerno ba jaan des defaat na saaku yu yii ñu nga fa ceerno lii toolab àllarba bi nu benn rek moom lañu la andil kon noo nga lay ñaanal di ñaan fan bu gudd di ñaan ak wér di la sàkku nga ñaanal nu nu ñaanal la yow it nga sut maam Thierno aw fan nga yor wërsëg ba eh, dama ne nag yow sëriñ bi Modou Muxtaar ba mu la tuddee Cheikh Awa Balla la wàccoog yow muy gayndeeg lislaam mu tuddee la Cheikh Awa Balla wàccoo nga ak moom wàccoo naa yow Serigne Cheikh Awa Balla kenn ku ne dégg na ko ci dundu bawal muy ku kaddu moom bawal amul mboolem ñi fi neen ci cheikh yi képp kenn ku ne li Cheikh Awa Balla am ci bawal amoo ko fa loolu moom leer nañ ñëpp kon nag bu Cheikh Mouhamadou Mokhtar Fakke yekk tur woowu feele ko yal na nga barke ba yal na nga am wërsëg wa na nga am xéewal ga te it moom loolu la ñuy ñaan ndax gilim kenn du ko ñaanal gudd da nga koy wax na gudd fan ndax yow fit ba ca Mouhamadou Mokhtar ne ca Cheikh Awa Balla ne ca Thierno mu ngay yow loolu kenn du la ko ñaanal loolu pare na lu pare kenn du ko waxati liñ lay ñaanal mooy gileem boo koy ñaanal danga naa naan na gudd fan waaye gudd rek gudd moom doy na yàlla na nga gudd fan la ñuy ñaanal gileem kon noo lay ñaanal Mbàkke di la siyaare di la sant di la xamal ne it ku jara àndal nga ndax xam nga nit tey saa yu bis sa taalibe saa yu amee njàqare yaa koy gën a jege loolu it noo la koy seere mbooloo mi saa yoo xam ne bëtab sa taalibe xong na amatoo jàmm feeg lijjantiku du am jàmm kon suñu nee ci tund bi soo gisee nag ba ñëw ci bunt bi ñu téye ma ndax sëñ Modou Mokhtar doon wax yéen ku ma yaakaar jëm bul ragal dara nee leen fan loolu la sañ Modou doon wax ku topp ci man rek bul yaakaar bul ragal dara kon nag bu ñu ñëwee fii ci bunt bi liggéey liggéey bi tonni ñu na yóbbu ko ca mangase bi ak yóbbu ko loolu du ma ko def moo ma tax a ñëw bi ma ñëw fi sax mbaxan na laa taxawaale ba nitam mbooloo am na ku ngoy sama loxo ne mbaxana mi waaye nit boo yàggee moom da yor jikkoom nun danoo yàgg ak Modou Moukhtar gis ay jikkoom gis lam doon def gis lam doon wax kon nag bu bis bi ñëwee tey mboolem ñii nga xam ne ñoo ko àndal jigéen ñi ñu ngi nii teew ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii nag mooy ngóor a ci taalibe day jot ndigal jëfe ko ndigal képp ku koy booyal sa taalibe taxaw na ak ndigal kenn du ko booyal ndigal des koy jëfe kii nag liim nu joxoon nun cala nu ngoy noonu na def leen dajoloo leen def leen toolam àllarba def leen daayira fii ne fu mbooloo mi xewee ci tund wi dañuy yebal pa sëriñ euh, mais ak ña Pam Ndiaye mi nooy dem teewal ko fa lan du fay dajale dañ ciy yëkkati booleeg loola joxeel ko ko fa su ñëwee nu joxeel ko su ñëw nu joxee ko fa kon sëriñ bi noo ngi lay ñaanal te di la gërëm te it xam ne lii nga nu nanga nu na jox ko ñaanal ba lenn la fay liggéeyal mu wér peng peng peng sant nan la bu baax Mbakke adde wi nag mu ngi nii waaw bisimilah addi yaa ngi nii comme que nag lu yàlla tax ngay def doonaa nangam la doonaa nangam la doonaa nangam la jërë ngeen jëf sant nañu baax Mbàkke ma lay ñaanal di la sant yàlla bu baax jërëjëf. Demba Fall mi ñoo bokk cukka naam day magum taalibi moo xam ne lim lim ma nangul bi fi sëñ bi nekkee sax ak jota mayu ko ko waaye may seere ne mbooloo mi ma am bawal sëñ Mourou. ni nu tënkoo bu ko yi ci des ñëpp tënkoo woon lu may dugg lu ne rek mën naa cee joxañ sama baaram rek ba mu sotti ma ñëw ñaanal leen xam naa keroog ma leen joxee ndigal ak tey fàttaliku ma fu ma leen soññee benn yoon rek laa wax ak ñoom ñoom ñëpp ñu dajaloo xoole seen bopp léeg dara xew sax ñu teewal ma fa euh, la ma fooroon waroon lépp ñu defal ma ko fa ba daanaka sama accident moo cay moo bu dee manqué moo cay manqué yàlla na sama boroom fay leen bu guddal seen fon ndax ñu ci bare bari samay xarit lan laata laata sëñ bi jóge ba ni ba ni yeesal ci man kon ñu ngi leen sant bu baax sant nag eh, mbooloo mi ngeen fekk fi sëñ Modou Wañaan am day day magum taalibe nekk Touba baayam doon ku baax di ab jullit di taalibu sëñ Touba moom moom it mu jaar ci tànk yooyu sëñ bi doyloo koon lool mu daay Touba Masaan ñëw da moom bokk na ci ñi muy laaj mu ànd ak ay bokkam ak magi taalibe yi Mor Assa sëñ Moussa Sarr meek Gala Seck meek nga xam ne ak Thierno Seck ca daara bay daara ji la nekkoon fu sëñ bi mas a gor rek ñee ñoo ko def waaw ñee fu sëñ bi mas a taxaw rek def fa daara ñee ñoo ko samp mm-hmm. waaw lépp fekk na leen fi ak Sidi Seen ñëw kon sant nan bu baax Euh, sëñ Ablaye na nga wax taalibe yi neen jot nañ ci liggéey bi euh, mosuñoo am sikki sàkkaat ci seen ci seen tënku xamoon ne ñu tënku ngeen li leen digal rek ngeen def kon ñu bàyyi leen ngeen dem ca dal ba ba ngeen xewlu ko defee ñu door a àggale cérémonie bi incha allah jërë ngeen jëf waa sëriñ bi waa Daaru Manaan ni ma ko waxee léegi ci njiital Baye Mor Asta ñooy jotli ak cant ak ngërëm ci taxawaay bii nga xam ne moom la ñu taxawee Daaru naan nekkal la fa nekkal fa képp koo xam ne aj na ci yow sant sëriñ ba Basiru Jeng mi toog nga xam ne bi nga jàppee bis bi ba nëga ni ma nga ci alxuraan ja ba noppi tey ji bis bi mu bàyyiwaat daara ja ñëw fekk si bi sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal ndax xam ne taxawaay bii noonu la doon taxawaay juróom bu baax wa Cheikh Mamadou Makhtar kon sëriñ Sidi Baye Mor Assa Touré ak alaaji Mor ak alaaji Cheikh Silla ñi ñu àndal ñëpp waa Daaru Manaan ñi ngi ñaan suñu borom yàggal la fi te wéral la ñu yàgg la fee fekk soxna yi nga xam ne saa yu ñu weexee dayra bu buñ ne góor na jigéen nee na soxna Fat Seck ak soxna Ndey Samb ak mboolem soxna yi kenn mënu leen ndax kat nee na ñoom ñëpp démb la ñu bàyyi ko woon Daaru Manaan ñëw bi waa Daaru Manaan xëy see ñëw ñu ànd ak ñoom ngir andi liggéey sa kanam kon Mbàkke nga ñaanal leen yàlla sàmm leen taxaw leen ba sa yéene ji nga am ci ñoom te nekk la fële ci Daaru Manaan yàlla may leen kattan ak man guñ ko defee ñoo mbooleem bokki Daaru Manaan yi nga xam ne ànd nañoo ñoom ñëw ci bis bi bisimilah. Serigne Sidi nee na mi ngi leen sant bu baax nee na nag mi ngi koy seereel Serigne Baye seex Awa Balla Mbacke bi toog mu sëñ Mourou Mahfous di rakam waaye nee na nag moog Baye Cheikh Awa Balla mii ñu bokk daara te yàgg jaxasoo kon Baye Cheikh Awa Balla Serigne Sidi nee na daa bëgg nga ñaanalal ko waa Darou Manane ñi ndax nee na ñoom ñii fi toog kenn du laajte ñi ñan la boo xamee sëñ Modou Makhtar doo laajte ñi ñan la ndax kenn ku nekk ci ñoom mën naa wuutu moroomam ci barab te kat nee yàgg nañ ci kër gi lool nee na kon bu ko yàlla boolewaatee ak ñoom. daanu gën a dalal xelam lool te nag nee ñu koy dimbali lañ ndax nee na léeg-léeg nit bàyyi ko ci barab ñu war koo lijjanti mel na koo xam ne daa wàññeeku ba minuit nee na dañ koy toppatoo ba suturaal ko gunge njabootam te kenn du leen ci fekk nee na nag lu mel noonu fee ñu féete ca daaru ma naan ci seen loxo la ko sëriñ si teg te fenn fu nekk la nit di bàyyi ko te waxtu wu nekk la leen di soxla moog sëriñ Mbàkke loo muy toog sëriñ Sidi nee na mi ngi leen di sant bu baax nee na góor a saw mi toog nee na ba mu njëkkee ñëw daaru mar naan jóge caameen nee na booba nag daa saqaloon bopp bi ndax waxawaan waxambaane alpulaar la woon waaye nag bëgg sëriñ siidi bu sëriñ siidi masaa jógee ba kër baay Abdou Khoudous Njaay nee na kër góor a saw mii lay jaar jaar ci maam fat sumul si la jaar ci maam fat sumul si la teer ci baay Mor Yaasin si la teer ci baay Mor Yaasin si la jënd euh, tànku lalam la daan juróom. nee na Gora Sow mii ci tànku lalam la daan sullee aw juróom. nee na booba lal yooyu nga xam ne dañ ko gor di ko ki moom la. nee na bu sullee juróom jox sëriñ Sidi. mu jaar ci Baye Fat maam Fat si la. mu jaar ci maam Fat Sumbur si la. mu jox ko juróom. mu jaar ci baay Mor Yaasin si la. mu jox ko juróom. te boobu fukk ak juróom. te nee na fukk ak juróom. boo ko yor marché Darou Marnaan. booba boo masaan yor fukk ak juróom marché Darou Marnaan. di ko ne boole koog di tout tànk sayr. lu la neex waxaale. ah nee na booba kat lu la neex luy jaay nga waxaale. nee na booba kat juróomi dërëm ci jamono jooja moo doon junni. kon seriñ bi kat nee na wëlërem la. waaye nag tey jii képp boolewu leen. kon sëriñ bi nee na. ngeen xamee digganteem ak góor saw sow mi toog noonu. nee na Seex Sylla mu Baye El Hadj Mor Yacine Sylla mooy taw Baye Mor Yacine Sylla moom nag sëñ bi daa wax ne moom du ko gërëm ndax kat dañoo bokk wenn waajur bokku lépp nee na dañoo bokk ci saayir bokk ci baatin kooku nag nee na loolu la yàlla def waaye nee na sëriñ Basiru Jang mi toog nee na sëriñ Basiru Jang mi toog képp ku ko gis. dëkk te dëkk Daaru Marnaan ñaar rek nga ñaar rek nga war a wax yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na yàlla musal Serigne Bassirou Dieng mii ci cat yàlla na gudd aw fan li nee na nag loolu li tax nee na li tax moom nee na moom ba sëñ Bassirou mi waajur bu baax wa Baye Mat Dieng Baye Baba Touré Baye Mat Touré Baye Mat Touré Baye Masayer Touré Baye Soosi Njaay Baye Socé Ndiaye. ak Baye Cheikh Diop Astawalo. ak Baye Cheikh Diop Astawalo. ak Baye Cheikh Diop Marema. ak Baye Cheikh Diop Marema. kenn ku nekk ci ñoom. nee na kenn ku nekk ci ñoom. alxuraan moo tax Serigne Cheikh Awa Balla tuxale sa cosaan. te xam nga ne mag ñooñu. ndax nee na kat xam nga ne mag ñooñu. mën naa am kenn ci des wala ñaar. mën naa am kenn moo ci des wala ñaar. nee na moom mii di sëriñ Basiru ay magam ak i rakam ñëpp ña ngay yaxantu ñëpp ña ngay yaxantu te ñàkkul wërsëg ndax suñu waaj te xam suñu waajuru jigéen wi bokk maag ndax nee na seen waajuru jigéen wi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk xam naa lan la liggéeyal Baye Modou xam na lan la liggéeyal Baye Modou Dieng kon boo wuti woon alal kon nee na kat soo wuti woon alal mën naa am nga am dara nee na kat kon danga am dara waaye da ngaa lay alal waaye da ngaa bàyyi lay alal ak li nga xam ne addina la nga ñëw féetewoo li gën xayrukum man taxallamul quraan wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki yàlla def ci moom alxuraan mu taamu ko di ko xam xamle kon ku gis rek ñaar yi rek la war a ñaan ci yow sëriñ bi nag nee na moom sopp na la ngir bàyyi mat jàng sopp na la nag ngir li ngeen maase noo di ay tu tànk waaye nee na nag li ko gënal ci yow mooy taamu gi nga taamu la sa waajuru baax wa nekkoon di ci liggéeyal sëriñ Tuuba te loolu mëntoon a ñàkk nga féetale ko sa bopp kon sëriñ bi nee na yàlla na la yàlla fay sëriñ bi nee na bu la gis toon du la jàmbat de nee na boo yóbbante woon mu doy ko ndax gone yi léegi. képp ku leen yor ci daara képp ku leen yar ci daara yaa ngi ci daase kat ndax ki gën a baax te yor daaray alxuraan te yor daaray alxuraan moom la saay saay si gën a soxla moom kat la saay saay si gën a soxla nee na buñ sañoon nga génn ñaari minit ba juum rek ba juum wala ñu def njuum te sa ginnaaw wala ñu def njuum te sa gannaaw ban publicité ban publicité ko kon nee na kat bu la gis toon du la jàmbat de nee na fu mën a ne ci àdduna di yow mii di sëñ Seexuna Ture ak ña nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké alxuraan ca Daaru Manaan seen yitte ak seen wërsëg sëñ bi nee amu ci soxla nee na nay yëg rek na yéen a nga ca kon sëñ bi nee na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sëriñ bi nee li ci des ñu bàyyee ko bàyyi Cheikh Awa Balla Mbacké mi toog mu sëñ Modou Mahfous mu ñaanalal ko mbooloo mi toog su ko defee nag moom bàyyi Cheikh Awa Balla mii ñu bàyyi ko yëg ci biir waa daaru mar naan sëriñ Cheikh Awa Balla ñu yóbbu leen ca dal ba bu ko defee ñu déglu kon Baye Cheikh Balla mu sëñ Modou Mahfous moom soxna may mun a Mbàkke bitul xadim moom sëñ Cheikh Awa Balla nee na ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay di am mbégte lool fekkee seen bisub mag ju baax ji toog muy sëriñ Sidi nee na ñu xam ne magam la xaritam la nee na nag wala wi nag moom yàgg na lool te nee na lépp rafet nee na mi ngi ñaan suñu borom mu gën koo dëgëral ci barkeb Serigne Touba nee na nag jataay bii jataay bu am solo la ndax kat mën naa wax jataay bii ñoom mooy seen ndono nee na toppatoo taalibe yi di nemmeeku taalibe dileen leen génni nee kat loolu mooy seen wàll moom la leen seen kilifa yi baax yi bàyyee de moo tax nee loolu kat moom mi ngi ci am mbégte lool ci sëriñ Sidi ndax kat nee na loolu rek nag moo waral bis bi nee na bis nag weesuwul dëgg la bokk yi di dimbalante ci lu baax ni nga xam ne alquran waxee na ko noona wa taawanu anil birri wa taqwa wala taawanu anil ismi wal hudwani nee na sunu borom nee na na ngeen di dimbalante ci lu baax te bañ a dimbalante ci loo xam ne bakaar la wala muy ab safaan kon nee na ànd ànd di jaamu yàlla ak loo xam ne day dëgëral seenu taalibe nee na loolu rek moo am solo kon nee na ñi fi fekk ñëpp nee na ñu ñëw nag àndante ak Serigne Sidi Mbacke bis bi taxaw fi nag taxawaay yu rafet yii ak ñi nga xam ne ñoo am yéene te yàlla man loo leen ko Serigne Baye Cheikh daal nee na ñoom ñaar ñu leen sant bu baax a baax di leen ñaanal sunu boroom nangu lépp barkeb Serigne Touba. te ngeen daje ci ak ngërëmul sëriñ bi ndax kat sëriñ Tuubaa moom lépp lu waay di sakku moo xam adduna la wala àllaaxira ci moom sëriñ Tuubaa kat la gën a gaawee nee sunu borom nee na Serigne Touba nee sunu borom moom ma ubbil ay masinam ay magasinam te nee na kat ay njariñul kese la nee na kat lor sori na ko kon nee na loo xam ne lu ñuy sàkku la nee na kat ci Serigne Touba rek la gën a gaawee na ab naar kat nee na nee na sëñ Touba du yàlla. waaye kat xaritab yàlla la kon lu ñuy sàkku ci moom mën nañ ko ci am kon sëriñ bi kat nee na mi ngi leen di gën a soññiwaat bu baax nu gën a jàppaat nag sunu diine gën a jàppaat sunu taalibe gën a ànd nekk benn noonee nga xam ne noonu la ko sëriñ bi digale ndax kat sëriñ bi nee na mbooloo mooy doole te bokk sëriñ Touba ñoo bokk lépp ñoo war a gën a ànd ñu bokk ndey ak baay kon Baye Cheikh Balla kat nee na kaddu gi nag moom du gudd ndax kat kaddu cant rek ndax li matoon a wax lépp sëriñ Sidi wax na ko ñi ngi sant nag teew ñëpp di ñaan nag bis bi yàlla may nu ñu daje koy atet nee na sun waajuru baaxu nga xam ne ci la sëriñ Sidi Mbacke taxawale bés bii muy Cheikh Mahamadou Makhtar noo ngi koy ñaanal yàlla sunu boroom dolli yërmande ci moom dolli ak njëgal ci moom yéege ko nag te maqaamay wayjur ya ak maam ya Cheikh Ibrahima Fatim Mbacké ak Cheikh Ahmadou Bamba te taas na ci barkeem sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm salaam wa rahmatulah jërëjëf Baye Sëñ Sidi amin i niñ ko doon defee boobaak léegi day ri andi sëriñ bi liggéey ci kanam sëriñ bi sëriñ Mor Ngom Boyo ñëpp xam taxawaayam gisoon ngeen ko ci woote màggal gi moo nekk ni ànd ak bokki Boyo yëpp ñëw andi sëriñ bi liggéey ci kanam sëriñ Siidi ñu déglu kàddu yi nga xaay ma bàyyi ko ci moom yo fog seereer o ga anga i ngoyrayo kene rek o i mbugu paama nen sirnoxe i takwayo laam kene felay lool i mbaganeran xoox dege min jega oxa andoona koy te xilfi'un to buga'in ka i mbarno ndam fa xa ɓay xarɓaxay xay fa xa ɗaq i sañ'anga xan i mbi'a ku na na magal ne i sañ'anga in seereer ino mbi'kan ndaa koy njegee mo waag in fo dene i mbi'o ke i mbaagna ke yoqna i yeeno rek mbogan fo sirno xe nqeɗa o barke um tasa in barke ba um jaragen jëf bismilahi rahman rahim barke Cheikh bala barke Cheikh sant naa la gërëm ci wàllu waa Boye kooku séeréer ndax comme li nga waxoon am na ñoo xam ne fañ dug xaw nañ ci am kersa am na ku bi may wo Aliou am na ku ma jot mu ne ah yéenay waaj ma ne ñooy waaj mais foofu la yem jërëjëf mbake parce que ba ma la waxee euh, daamar googu boobu xam nga man moom taalube laa boo xam ne weer na weer na Aliou a ngi nii waaw kon sëñ siidi yàgg fi lool te weer Mbàkke ñun waa Boy ak ñun waa Koki Séeréer ñoo ngi lay sant di la gërëm waaw ndax lii kat kiiw si Cheikh Awa Bal moo ci dugg de ndax naaje nañu Boy torop di weer waruwaay waruwaay wow nag waay waay sëñ siidi geesuñu waay ci barke Cheikh Awa Bala ci barke Cheikh Awa Bala ndax bañ ñu geesoo ci wàllu makaan sangaan nga fàttewuma ko mukk ñu ngi nii waaw soo ñëwee sama ruq tey di am foo alhamdulilahi rabil alamin ci barke Seex Bala man daal maa ngi sa ginnaaw ci saayir ak baatin waaw foo tollu dañu gestu ñun waa boy ñun waa Koki Seereer ci saayir baatin ñoo ngi sa ginnaaw jërëjëf Mbakke bokk ko ci sama xol ma ko man dey damaa xis a jébalu waaye doy nga ma sam xarit xarit la lay def xarit boo boobee nag bu ma ko gisatu dima ko walbate ko ci yow dingaa ñëw sama kër ma jox la sama doom mu jokk ci yow dese fa dese naa fa nag ñetti doom yoo xam ne yow laa ko fa baxal kii mooy sama taaw ci sa baay laa ma maa ko joxoon sa baay ndax ma ne ginnaaw man daanaka wéy na ndax ginnaaw xis na maa jéblu ci waa kër Sëñ Tuuba to lépp benn la jox naa la sama taaw bi taaw bi topp ko topp ko boo gisatu ko mu jàpp ci yow xarit ba ma defoon sa baay itam walbatiku naa ko ci yow bés bés ni tey gën naa koo dëgëral sama ñetti gone nga fa nag yow la ñuy xaar ku ci dee diggante bi sa taalu ba moo dee rek man daal maa ngi sa ginnaaw sant naa la bu baax bëgg naa la itam bu baax a baax a baax a mënu maa doylu ci yow nag. liñ bay seen mi bàyyi ko kokki séeréel teewal fa ay teewal fa ay magam. te teewal fa ay magam. te teewal fa ay magam. kon maa ngi koy sant bu baax. kon sëriñ bi nee na mi koy sant bu baax. la ma doon wax ci ah, làkkat. nee na loolee mu doon wax ci làkkat. dañoo amul caaxaan. dañoo amul caaxaan. fi bëgg ci ñoom rek. nee na sëriñ si nee na fi mu toll lu mu bëgg ci ñoom. maa ci seet sama diggante ak nee na kat moom day moo ci seet diggam ak boromam. waaye lu ma leen wax rek ngeen def. waaye nee na kat du mu wax rek ngeen def ko. sama baay bee doon wax. nee na waajuram bu baax wi doon wax léegi. bu mu masaan dem kërëm boo masaa dem këram. damay am kersa ci moom. nee na day am kersa lool ci moom. ndax mooy gën a sawar Aliou mii mu ndax mooy gën a sawar Aliou mii mu ko jëbbal. tey jii sax bett moom ndax defoon naa ne. nee na tey jii sax da ko bett tax defoon na ne sax du ñëw. kon maa ngi lay sant bu baax. kon sëriñ bi nee mi ngi lay sant bu baax. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf sant jigéen ñi bu baax waaye nag nee na cant gi mi ngi sant soxna yit bu baax ndax waañu waañu tub màggal Touba yi ndax ñoom ñii kët ràññiku nañu lool ce màggal Touba ci waañ wa waañ yëpp ñoo ak mboolem foo xam ne sëriñ bi ma ngi fay woote ñooy toppatoo waañ yi ah, doom jooju réeroon te ñëw nee na seen doom jooju réeroon te ñëw yàlla na dëpp am xelam nee na yàlla na yàlla dëpp am xelam na yàlla suñu borom dëpp am xelam ci loolu mu defoon te loolee nga xam ne moom la defoon. gàllankoor bu taxoon mu def gàllankoor bu taxoon mu def ko. yàlla na ko sama borom teggi. yàlla na ko sama borom teggi. te dafa leen xéwal yu bari. Mm. kon baax na mën ngeen a dem ci dal kon nag mën ngeen a nangu ñaan sëriñ bi nee na ñu yóbbu leen ca dal ba nangu leen ñaan. Mm. ana ñu yar dayri yi nañ ànd ak ñoom dem ca. sëriñ Sidi mbakke nee na yéen waa Mbackoon mi ngi sant bu baax. nee na mbooloo mi ñëpp sëriñ waaye juróom bu baax wa sëñ Modou Makhtar lañ àndaloon. xanaa rek seeni doom lan ma joxoon lañ jox sëriñ bi. waaye gannaaw waaye nag gannaaw sëñ Modou Makhtar. ñi ñëpp. ñoom ñii ngeen gis ñëpp. sëriñ bi lañ àndal. sëriñ bi lañ àndal ak moom. Cheikh Mbaye doonoon seen nee na Baye Cheikh Mbaye doonoon seen njiit. ci ndigalu sëriñ. ci ndigalu sëriñ Modou Makhtar. waaye bisu tey bi. waaye bisu tey jii. daa tombe ak seen bisub dëkk. ak seen bisub dëkk. waaye soxna su boppam. waaye soxna su boppam. biig la ñëw ak waa këram ñëpp. biig la ñëw ak waa kër Baye Cheikh Mbaye Guèye. xam naa ku dem këram. xam naa ku dem këram. boo watul moom may moom ma mënta ñàkk a ñëw rek. boo watuwul moom ma nga xam ne mënta ñàkk a ñëw. rek moo fa des. moom rek moo fa des. te wax na leen ne leen. te wax na leen na leen. bu delloo tombe. bu delloo tombe. damay tëj sama kër gi. damay toj sama kër gii. aw ma lu ëpp sëñ Modou Makhtar. ndax kat aw ma lu ëpp sëñ Modou Makhtar. ñii nag maa ngi leen di sant. nee na sëriñ bi nag nee na yéen mi ngi leen di sant bu baax. ci kóllëre gi dox seen diggante. ndax kóllëre gi dox seen diggante. laata njëbbal. laata njëbbal gi. lëjalu leen ma. nee na lëjalu leen ko. sonalu leen ma. leen ko. ni ngeen nekke woon ak sëñ bi rek. na ngeen nekke woon ak sëñ Modou Makhtar. moom ngeen nekkee ak moom. noonu ngeen nekkee moom. waxtu wu nee na waxtu wu jotit. seeni jëf mi ngi ñëw ci man. seeni jëf mi ngi ñëw ci moom. di jaar ci Baye Cheikh Mbaye. di mu mat sëkk. mat sëkk. muy agsi ci ci moom. di sant jigéen ñi bu baax. di sant nag soxna yi bu baax. màggal gu jot. màggal gu jot. li jëm ci cin yi. li jëm ci cin yi. wàllu diwlin. wàllu diwlin. yéen a koy dajale di ko indi. yéen a koy dajale di ko indi. mu mat sëkk. mu mat sëkk. kon ñaa ngi leen sant bu baax. kon bi kat nee na mi ngi leen sant bu baax. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. li ngeen di sàkku seen borom kër yi. li ngeen di sàkku ci seen borom kër yi. yàlla nag sama borom yàlla nag suñu borom def. ku ma ci gis rek. nee daal comme ci gis daal. jox nga ma sëñ Modou Makhtar. jox nga ko sëñ Modou Makhtar. moo xam ma xamoon seen diggante. moo xam mu xamoon seen diggante. wala sa waajur. wala sa waajur. ak sëñ Modou Makhtar. ak sëñ Modou Makhtar. bu mu leen limee. nee na bu leen limee. day day day xaw a day xaw a yéeme. waaye yéen xam ngeen xam na. waaye yéen daal xam ngeen xam na. maa ngi leen di sant ñu ngi leen di sant bu baax. kon sëriñ bi nee na sëñ Cheikh Sylla ngeen yóbbu leen ca dal ba yàgg sëñ Bekaay nee na nag dayre bi soxna yi ñu leen sant bu baax a baax na jàmbaaral lool ci dayre bi kon man ngeen a dem ca dal ba ba xewlu bu ñu julee takkusaan nag ñëpp dañu ci bas bi seriñ bi daal nee na daa bëgg fu ñu julee takkusaan fekk mbooloo mépp ci bas bi képp ku fi nekk nag di taalibe nee na nag képp koo xam ne da nga fay nekk di taalibe day te nga bokk ci man te nga bokk ci sëriñ Sidi fanaan laa bëgg def fanaan daal pay pay la ba nga def ko soobu ñaanal la te loolu daal mooy ndigal kàddu yi day kàddu cant la ak dégg di sàkku ñaan délégation Omar Sy honorable député moo ñu yabal ñu ànd nag ak daanaka composante maanaam pàcc parti bi yëpp ak pàcc mbuur yëpp ndax daanaka quartier mbuur yëpp ñëw nañu ndax bu ma waxee ni coordinateur bi la yabal muy man Sayer Diop boole ci Sidaat Sané chef protocole del jigéen ñi jël ku mel na femme développement Adja Fat Seck Diop ak secrétaire général bu ñuy wax Adja Ndeye Dafe représenté fi tamit collectivité Mandeng honorable député sëñ bi xam na ni newu fi te sore na lool ma nga ba États-Unis waaye dafa ni nan ñëw teewal ka fi ñëw nag doon ay taalibe nag rek dong nag bëgg ko doon rek di sàkku ñaan ci sëñ bi di ko sàkku it ci suñu leader El Hadj Omar Sy ndax yitte woon nañ ko loolu ndax xam ngeen ni am na fu ñu jëm te moom dafay yëngu ci loolu ci mbirum àddina ñuy sàkk donc ñaan di wax ni jigéen ñi jàmbaar lañ sëñ bi ñu ngi la koy biral ñoom dañoo ñu fu jëkk tey ci suba ñoom ñoo ñu dëkk fan doon jëlee oto ba dëgg-dëgg kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ah di feddali kóllëre nag di feddali taalibe di feddali pas-pas di wax ni nag ñëw nañ bokk ak yow bis bi di ñaan luñ fi luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu def fi xewal def fi xewal bu saawaan baawaan waaw waaw ci barke yonent bi sallallahu ci sa barke maam waaw loolu dong ñu fi tax a ñëw nag ñu ngi sàkk ñaan bu baax nag jërëjëf. ñu delloo sant bu bi bàyyi ko Alhaji Omar Sy bu Mbour Serigne Sidi Mbacké mu sëñ Modou Makhtar nee na mi ngi leen delloo cant ak ngërëm bu baax. kooku sama baay la. nee na jëmm joojee ngeen bàyyi ko way juróom la. ndax maamam ak maam sëñ Maxtaar bokk ndey. ndax maamam ak maami sëñ Modou Makhtar ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay. jarbaatam mi ngi ci kër gi mooy sama soxna. ab jarbaatam soxna Fat Sey mi ngi ci kër gi mooy soxna Sey Sidi. waaye loolu lépp. waaye sëriñ bi daa wax ne loolee lépp. ni ngeen ko jàppee. ni ngeen ko jàppee. ak ni ngeen goree. ak ni ngeen goree. ak ni ngeen nekk ci ginnaawam. ak ni ngeen nekk ci ginnaawam. dafa maa dàqal lépp. da koo dàqal lépp. olof Njaay nee na. nee na nag wolof Njaay dafa wax ne. geenum nopp si jaboot gudd na. geenum nopp si jaboot gudd na. waaye loo ca laal borom yëg ko. waaye nag loo ca laal borom yëg ko. bu ngeen nekkoon ak moom mbuur bu ngeen nekkoon ak moom am nu ngeen doxe am nu ngeen doxe fu mbokkam nekk dana ko yëg fu mbokkam nekk dana ko yëg moo tax lu baax li ngeen def moo tax lu baax li ngeen def ak ni ngeen fidèle ak ni ngeen fidèle ak ni ngeen ko jàppe ak ni ngeen ko jàppe mbokkam yëpp yëg nañ mbokkam yëpp yëg nañ bu dee jigéen ñi nag moom bu dee jigéen ñi nag moom dama ne duñ ay militant nee na duñ ay militant ñii ay doomam lañ ñii ay doomam lañ jarbaatam lañ ñii ay jarbaatam lañ ñii ay ay jigéenam lañ ñii nag ay jigéenam lañ yéen moom yéen moom kuy gërëm Omar Sy rek yéen daal nee na kuy gërëm Omar Sy wala muy ñëw ci Omar Sy wala muy ñëw ci Omar Sy xàmme ne seen kanam xàmme ne seen kanam du woote dara du woote dara ngeen des ginaaw ngeen des ginaaw kon kon sant naa bu baax ci seen ñëw sant bu baax seen ñëw bi délégation bi sant naa ci nee na délégation bi nag sant na ci waaye yéen ñi tax ma gën a sant waaye nag yéen ñii nag yéen a tax ma gën a seen fidélité ndax seen fidélité ak fu fu fu omor si soxla ak fu El Hadj Omar Sy soxlaa ku geesu gis leen ku geesu gis leen loolu mooy li am solo. nee nag loolee nag mooy li am solo. te tegguwu leen ci seen tànk. te tegguwu leen ci seen tànk benn yoon. jot na ma. nee na jot na ko. woo na ma. woo na ko. lépp loo xam ne baax na. lépp loo xam ne baax na. te waajurul ko jàppale doomam. te waaye jur di ko jàppale doomam. mi ngi ci jàppale. nee na ko ci jàppale. bis bii. bis bii. jëfam ma ci njëkk. jëfam daal moo ci te yëmu ca. te yëmu ca. comme xam ne bu la wooyee. comme xam ne bu la wooyee. nga jëf ci bis bi. nga jëf ci bis bi. woo na la. fu mu toll yi tamit. fu mu toll mi ngi woote di laajte. mi ngi woote di laajte. fu mu toll. fu ñu toll. ak lu nar ak xam nga Omar si day as gor. ko xam nga El Hadj Omar Sy as gor. te bëggul gàcce. te bëggul gàcce. te bëggul bëggul mbokkam yëkkati loxo fenn. bëggam bëggul mbokkam menn yëkkati loxo ñu damm ko ñu damm ko. du ko def mukk. du ko lim am lépp bokk na ko ki bokkam am lépp bokk na ko ki bokkam. kon yàlla ko yàlla sàmm. te dëral ko bis bii bisam la bis bii daal bisam la ni ko sëñ Modou Makhtar moome la ko ko sëñ Modou Makhtar moome noonu la ko moome ñee toog ñëpp ay jarbaatam la ñii ay doom ay jarbaat ñii di ay doomam ñii nag di ay doomam kon sant nañ leen gërëm leen kon sant nañ kon yóbbu leen ci dal bi nañu leen yóbbu nag ca dal ba ñu toppatoo leen xéewal ñu toppatoo leen xéewal ba ba ci kanam ba ci kanam ñu génn ci cérémonie bi ñu génn nag ci cérémonie bu ñu la tax sax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer